lay ci question boobu dinañ dugg un peu ci question d'actualité ndax euh, dégg nañ euh, gis nañ sax laay wax euh, parti coalition bi nga xam ne moom mooy Dekkal Teraanga ñi nekkoon ci biir wala mën naa wax sax ki nga xam ni moom mooy leader bi en 2019 dafa àndoon ak ki nga xam ni moom mooy président Ousmane Sonko nekk Pastef ñu ñëw ba ci élection locale yi mu génn fa ànd ak ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci nguur gi ba 2024 présidentielle mu ànd ak ki nga xam ni moom mooy Amadou Ba ñu jógee élection présidentielle gisaat ko mu génnaat ci Amadou Ba ber su boppam lan moo waral choix yu bari yooyu noonu ak lan moo waral kii yu bari yooyu. Euh, effectivement Babacar c' est une bonne question du ay du ay ay choix yu bari. Mm-hmm. est des choix très en réalité bi nga xam ni euh, le le docteur ab le docteur Abdoulaye Niane euh, mi ngi ànd ak euh, le président Ousmane Sonko c'était à travers une alliance boobu moo doon jiite coalition Jotna moom je rappelle que bi mu defee fukki at ak juróom impôt domaine ni mu demee ba gis ni ni ñuy doxalee doyu ko mhm. dafa bind lettre de démission mhm. muy lié moon Sénégal gépp dafa démissionné mhm. de la fonction publique dem parce que boobu am na ay lijaasa nag yoo xam ne may na ko mu dem jàngale ju université amoon na ay lijaasa yoo xam ne aussi mayoon na ko mu ubbi ne son cabinet d'expertise fiscale donc mën a gagner sa vie correctement mu démissionné au même moment le Ousmane Sonko. Mhm. Euh, son collègue. Mhm. si moment boobu. Mhm. daan ni moom day toog ci nguur gi. di dénoncer. xam ñaari approche bokkul ñaari yari bokkul ñaari doxali yi bokkul. mais toog di dénoncer di dénoncer ba ba ba ba ba ñu dàq ko. ñu dàq ko il s'est victimisé parce que doo nekk ci ab nguur ba pare di lekk def lépp ba pare ni lii di di di dénoncer rek dafa am ay termes yoo dafa am loo xam ni dafa tënk. fonctionnaire de l'État boo koy boo koy jalgati da ngay génn di jalgati mais nekk si biir di jalgati dañ koy dàq biñ ko dàqee mu victimiser wu ñëw fekk ko mu jiite coalition jot na bi mu ñëwee ñuy ay xarit di ay ñu yàgg ànd mu jiital ko ne ko demal présidentielle 2019 mu daal di koy def directeur de campagne am donc ñu ànd duo ànd bu rafet mu dem ba résultat yi Ousmane Sonko amoon en 2019 kenn mënu ci génne xarañteeg docteur Abdoulaye ñaan en tant que directeur de campagne en tant que technicien en tant que financier en tant que leer yu bëree bëree bëri mais bi élection yi jàllee Ousmane Sonko dafa ñëw démissionner de la coalition jot na parce que boobu coalition boobu mooy leen tënkoon je léegi-léegi ñu ni Ablaye Niane dafa jaar dafa jaar ne Ablaye Niane est la coalition jot na Ousmane Sonko nekkoon coalition jot na moom mooy ñëw démissionner de la coalition jot na dem ànd ak son parti Pastef euh, outil baatu askan bi effectivement docteur Ablaye ñaan aussi jë nekk ci coalition jot na ci bopp bi mais yore partem parti Teranga Sénégal parce que du mu koy créer et pour la conquête du pouvoir et conserver cela mm-hmm. mu continuer aussi yoonam donc foofu amul jafe-jafe taxul seen diggante mm-hmm. am lu ñaaw parce que ku nekk am nga droit euh, sa li nga tànnoon balaa ngay xame xame ak nit ki mm-hmm. nga continuer ko bi Ousmane Sonko di créer parce que fekk na euh, docteur Ablaye Niane créé partem donc ku nekk di dem ku nekk dafa dem ak yoonam bi ñu demee ba deux mille vingt deux ci local yi effectivement dafa jël partem jël courage am liggéey liggéeyam def li mu war a def ba am ci résultat bi mu ci war a am bi ñu demee si élection législative yi mujjee am nii élection législative yi docteur Abdoulaye Niane dafa participer bu baax a baax si liñ naan coalition euh, Yewwi mm-hmm. askan bi mm-hmm. euh, ensuite ñu boole parti démocratique sénégalais parti Pastef parti yu bëri mu nekk ci liggéey ci liggéey ci liggéey ci mm-hmm. euh, ba ñu am ay coalition si yu bëri booba jusqu'à présent je rappelle que ñi ngi nekk si en de bons termes comme toujours d'ailleurs comme mm-hmm. aujourd'hui c'est euh, d'ailleurs ñi ngi si en bon terme ñi ngi liggéey politiquement mm-hmm. mais li gë li indi mu dem ci le président Macky Sall mm-hmm. mooy bi ñu defaree liste yi ba tënk ci néeg ku ne sa position ak li nga war a def dañoo dem ba war koo déposer mu gis ni changé nañ liste bi mu waxante woon ak ñoom ay nawle si autour de la table dugal fa keneen yóbbu ko foo xam ni kenn xamul fu mu doon. affaire bi nekk lu metti affaire bi ñu mën koo tudde wor parce que du moom moo war mais ñoom ñi ma àndaloon di di di wax di tënk di di di liggéey. ñoo dem ba au dernier moment ñu war a déposé liste si war ko deful lu xëy suba gis liste yi gis boppam foo xam ni sori na. ah kon loolu moo ko tàggaleek. loolu moo ko tàggaleek opposition bi. Hmm. parce que effectivement boo àndeek opposition. Hmm. parce que da ngaa mës a contre pouvoir. depuis mu créé parti mag léegi 2017 dafa mës a contre pouvoir gëm-gëm ak gis-gisam la mës a moom la mës a moom la mës a liggéeyee mu dem ba coaliser ak opposition bi mu dem opposition war ko mais est-ce que loolu raison la buy tax mu bàyyi opposé bi mu ne opposé parce que ki ngay opposé mooy li muy def neexu la ki ngay opposé mooy gis nga ni yoon wi mu jaar baaxul est-ce que loolu kon war na nekk raison bu tax mu dem àndaat ak ñi nga xamante ni ñoom la doon opposé bon xam naa di am exclusivité tey parce que Euh, effectivement soo ko abordé noonu. day nekk euh, loo xam ni da nga naan waru koon def. mais en réalité bi muy dem. di jël banque. xam nga banque boo ko jëlee doo politique. donc bi muy dem di jël banque national c'est pour liggéeyal askanam. booba nekkatul ah, poste politique yoo xam ni da ngay nekk ci nit bokk APR wala bokk ni mës sa bokk APR. mësta ànd ak APR ànd bien entendu ci li nga xam ne mooy liggéey bi parce que poste bi ki ko ki ko doon proposé euh, moo nekkoon président APR mais ñi ngi ko validé ci siège boo xam ni ay borom bopp yu saytu banque xam-xam-xamam xam ne mate na ko moo tax ñu jox ko ko mais dañu doon gis ci campagne yi ñu doon sol ay t-shirt yoo xamante ni dañ ko floqué euh, euh, ki nga xam ni moom mooy euh, Macky sàll ñu Amadou Ba nga gisaat tamit ñi nga xamante ne ni ñoom lay. àndal suñuy campagne 99 point 0 Touba teg ko ci kanam mooy ki nga xamante ni moom mooy leaderu APR. bon je je précise que gisu leen fenn fenn campagne bi fu fu. Mm-hmm. photo Abdoulaye ñaan affiché woo ça je je défie quiconque photo Abdoulaye ñaan affiché wu li nga xam ni moo am mooy euh, li nga xam ni moo am mooy dafa jël banque ba bàyyi ñu ñun ñi ci parti Teranga Sénégal ñu politique bi mu jëlee banque bi et je et je répète et je réitère que dafa yemoon ci liggéeyu banque liggéeyu banque dalay ay définitivement politique parce que ab politicien mënta yore banque donc su ma déggee li nga bëgg a wax yéen yéen a àndoon ak ak waaye nekkul moom. Euh, ñun ñoo àndoon ak APR ñun ñoo doon liggéey parce que le parti devait continuer à vivre man je je je je et je réitère que en tant que euh, coordonnateur départemental mobiliser woon naa suñu militant mobiliser suñuy nit ñu ànd ak Amadou Ba mais lui mu ngi ci bànkam mu ngi liggéey liggéey mi ngi def ay résultat te mi ngi dimbali doomi Touba. Mm-hmm. parce que quand même ñëpp xam nañ ni bi mu yoree banque bi bëri na ay jigéen yu mu financé bëri na ay nit yu mu financé bëri na lu mu liggéey ci Touba ngir bëgg suqali économie ngir bëgg suqali doomu Touba ci activité am donc loolu Euh, c'était à saluer man bokkoon naa si ñi ko proposé mu dem liggéeyal Sénégal parce que banque ba dafa ko fekk mu nërmeelu mm-hmm. capitalu onze milliards mm-hmm. mu yóbbu ko ba cinquante cinq milliards en un an poussière donc may nañu ñu gëm effectivement ne li ñu ko toppee leadership bi ak xam-xam bi may nañu occasion effectivement ñu xam ni loolu lu am la c'est des talents avérés mm-hmm. et donc euh, suñ ko bëggee tënk ci dafa euh, dem ngir seey ci parti wala kon d'ailleurs su demee noonu tey du berli su boppam Mm-hmm. tey bi mu génnee ci banque bi ba ñëw élection ñëw dafa ber li su boppam dem mm-hmm. ça veut dire que amul woon lu ko tënk mm-hmm. en terme de euh, collaboration avec le pouvoir d'accord